Toujours dans votre acte du jour de ce 23 juillet 2024 dañuy dellu soit ci li nga xamante wër aduna bi muy convention bo xamanteni digënté diggante LONASE la ak ñen ci ay këru taskati xibar ginnaw bi nga xamanteni ki dañ ci cité turam muy Bour News di convention bo xamanteni ni toll na ci 20 millions bo xamanteni ni na ci digganteem ak LONASE ki ko xamle won nak ci ben live bo xamanteni ki di Mati Trois Pommes di journaliste influenceuse nek ci réseaux sociaux dal daal koy xamle ki di Bour News delu suñu dal pour indi la lumière jëmale ko dal ci li nga xamanteni Mati 3 Trois Pommes wax nako ci contrat bi nga xamanteni mo moo ci digganteem ak LONASE toll ci 20 millions qui di Bour News xamal ne que daal que loolu ay affabulation la ba nopi dal dinay tiré bu baax a baax ci ki di Mati Trois Pommes ginnaw publication bi nga xamanteni dañ ko partager ci réseaux sociaux mom Mati Trois Pommes m'ont affirmé que ki nga xamanteni moy mooy Bour News dafa signé benn convention bu 20 millions ak li nga xamanteni moy société bi di l'Orange loterie nationale sénégalaise ki dal xamal na ne que daal loolu amul ginnaw loolu dal Bour dellusi pour rétroquer bu baax a site d'information bi nga xamanteni ginnaw bu mu tiré lourdement jëmale ko dal ci ki nga xamanteni moy Mati 3 Pommes xamal ne dal diplomatie lu mu wax dóor amul lépp lu mu ci mën a sukkandiku daal mooy que lépp lu mu wax daal dara taxawu ci dara du ci dëgg ki ko xamle muy buur News jëmale ko daal ci benn intégralité ci wàllu rédaction bi nga xamante ni ñoom ñoo daal di sukkandiku ci ay éclairage pour jëmale ko daal ci affaire buur News ak li nga xamante ni mooy LONASE malgré li nga xamante ni mooy démenti yi nga xamante ni indi na ko jëmale ko daal ci internet yi jaarale ko ci publication moom Bour dafa daal di insister di continuer pour nekk di calomnier li nga xamante ni mooy live bi nga xamante ni Maty Trois Pommes na ko persister na daal bu baax ne xam naa ne Maty lépp lu mu wax dara amul ci benn manière la daal boo xamante professionnel la kii di Bour News dafa en contact ak kii nga xamante ne Trois Pommes pour demander ko daal je xamal ni ko daal dafa de bonne foi jëmale ko daal ci li nga wax ci alors que moom dafa raccroché au nez jëmale ko daal ci prétexte bu mu madame daf ko ne je je m'appelle pas madame ok ginnaaw loolu daal buur lool la xam ne bu mu jëlee téléphone am woo kii nga xamante mooy Mati trois pommes Mati daf ko ne je m'appelle pas madame mu ne daal benn convention daal moo xamante ni moom buur news amoon na ko diggante ak LONASE muy benn contrat boo xamante ni test la woon test waaw contrat test la woon jëmale ko daal ci 6 millions de francs CFA bi nga xamante ni kii di Lat Diop moo fa nekkoon directeur mais ginnaaw loolu dañu annuler contrat bi bi nga xamante ni daal dañ ko homologué jëmale ko daal ci directeur bi à cause de couverture yi nga xamante ni mi ngi ko doon def ci événement yi nga xamante ni mooy événement deux yi kii di Bour News daal nee na musul am contrat 20 millions contrat 6 millions lañ ko jëloon te contrat test la woon test boobu nag di bi nga xamante ni Lat Diop moo fa nekkoon mais quelques jours après dañ ko daal di dakkal parce que dafa am ay manifestations yoo xam ne da ko doon couvrir kon donc moom musul lekk un centime li nga xamante ni maanaam mooy lonage loolu daal la buur daal di indi jëmale ko daal ci éclaircissement yi nga xamante ni ginnaaw matière trois pam ci live am xamaloon ni que daal buur news am na contrat de 20 millions foofu ca lonage <laughs>